asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ci waxtu bi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ku ñu jàppandalal ci wàllum xarola gi suñu mbokk di jaawo jàlloo mbokk yi gannaaw buñ sante buur yàlla subhaanahu wa du julli si nontu bi sallallahu alayhi wa ñu di leen fàttali ne rekk xéwal bu ñu suñu borom tabaaraka wa taala baaxee ñu jóge ko di ko jëfandikoo ci waxtu yu néew ci ginnaaw te mooy lam ñu wërsëgal jox ñu ko mu doon kado ju baax kado ju neex kado joo xamante ne teraanga joo xamante ne keneen ku moom amul kenn ku ñu ko mën a jox kon ndegem ci mbaaxu yàlla buur bi tabaraka wa taala ci ñun mu tàggatal ñu mbindaafoon ba ñuy duppee nelaw mu wàccil ñu ko ñu di ko jëfandikoo yonent bi sallallahu alayhi wa ne ñu kon képp ku jëfandikoo jumtuwaay boobu boo ci noppee dafa am ni nga war a delloo yàlla buur bi la ko tàggatal ba nga ko mën a jëfandikoo danga ko war a sant delloo ko njukkal sant buur bi tabaraka wa taala comme moom yonent bi ko jàngale sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ñu bindal nelaw boobu nga doon nelaw ginnaaw boo ko tàmbalee comme naka la ko islaam jàngale nga yeewu ci nelaw buur tabaraka wa taala delloo la sa ruux nga jàng ñaan bi nga xamante ne moom la yonent bi sunnaal ne képp ku nga xamante ne jullit nga bu la yàlla xéewalalee ba nga nelaw mu may la occasion batax mu di la delloo sa ruux nee na boo yeewoo ci nelaw bi dafa am li nga war a tudd baat yooyu nga war a tudd mooy alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur mooy wan baat mooy danga war a wax ne mboolem cant yi yu kawe mboolem cant yu matale yi yàlla dong ko moom ndax mooy buur ba nga xamante ne moo ma ma def la nga xamante ne mooy nelaw te mu doon dee bu ndaw ginnaaw si mu delloo ma sama ruux te ci moom yàlla buur bi tabaraka wa taala la dellu gannaaw bu ñu taqale kook dund bi ndax loolu la koy diggal mooy bu duwutoon yàlla buur bi tabaraka wa taala moo ñu wërsëgal jëfandikoo kaay boobu ñu jëfandikoo te mu doon nelaw anakan moo ñu koy àndil ba tax na mu ne ñu nelaw bi il faut ngeen def ko man yàlla maa leen ko tàggatal maa ka ko wërsëgal moo tax boo demee xool ci alquran ci suratu naba buur bi tabaraka wa mu ñuy baaxee du ñu ne wa jaalna nawmakum subaatan man yàlla maa leen defal nelaw mu doon dallukaay wi nga xamante ne sa foofu ngeen amee la nga xamante ne mooy tranquillité waaye ci nelaw ngeen di amee dallukaay woo xamante ne du ngeen ko amee feneen waaye du ngeen ko amee ci leneen tamit lu dul ci nelaw boobu kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam préparel na yow jullit bi nee na la xéewal boobu di naw mu te mooy nelaw bu la ko yàlla yenkeewal benka mën a def kon boo yewoo la nga war a def mooy sant yàlla ci anam bi ko jàngale mooy ñaan bi ñu ñaan ni mooy alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur mbokk yi képp koo xamante ne duggee nga sa bis ci ñaan bi ubbi nga sa bis ak ñaan bi war ngaa am yaakaar ne sa bés boobu war naa nekk bés bu mucc ayib moo tax boroom xam-xam su mag di xasanul basri rahimahullah mu ne la kon ndegem topp nga tegtal bala yonent bi tegtal sallallahu alayhi wa sallam ne nii nga war a duggee bés bala yàlla wërsëgal nga di ko dundaat encore kon yow doomu aadama bi xamal ne bés yooyu dañ di ay bés yay ñëw di la filmer di la photo di la enregistrer ñuy jaar di dem ba tax na danga war a bàyyi xel ne bépp bés ba ñëw tiim la bés boobu bu jaaree ba xamal ne am na la mu wàññi ci sa dund bi am na lu mu yóbbaale ci sa dund moo tax nga dégg boroom xam-xam bi di xasanu basri mu naan la ibnu adam innama anta ayaamun doomu aadama bi dee danga war a xam ne bés yay ñëw di jaar di jàll moo la fi taxabaay ba tax na da war a bàyyi sa xel ne kullama dahaba yowmun zahaba baaduk bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne bés boobu dem na dootul delsi moo tax boo yeewoo ci nelaw bala yàlla yenkeewal santal yàlla nga nara song bés bi ak cant yàlla bi nga tàmbalee ci njëlbeenu bés ba ci waxtu wi ñu nekk nii ndax yàggut rekk noddukat bi dafa am nu mu ñëwee noddukat bay noddu ci jàkka ji dafa am la mu def ba mu ñu yee ci nelaw yëkkati na baat tudd na màggaayu yàlla tudd na ne mu ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla tudd na ne mu ngi seede ne yonenti yàlla muhammad dëgg la yàllaa ko yónni mu woote jullit ñi ne leen kaay leen ci li nga xamante ne mooy julli julli wi nga xamante ne moo leen di jokkale ak seen borom mu doon première audience ba jullit bi di am ak boromam mu teg si ne kaay leen ci texe texe bi nga xamante ne du ngeen ko am ci lenn du ngeen ko am ci fenn fudut si julli rawatina ba ngeen di def ci néegu yàlla di jàkk yi mu teg si ne assalaatu xayrun min an nawm julli de moo gën nelaw bi ngeen di nekk di def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 حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر laa ilaha illa allah noddukat bi bu noddee lii ba noppi yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam képp ku dégg nodd bi da nga war a teg ci ginnaaw nodd bi allahumma rabba hadihi daawati tamma wa salaati alqaa'ima aati sayidina muhammadin alwasilata walfadila wa darajatan aaliya rafica wa bacashu allahuma maqaaman mahmud allati waadtahu innaka laa tuxlifu lmiaad nee na képp ku ñaan ñaan bi gannaaw bu nga déggee noddu xalat lahu shafaati yowm alqiyaama kii wax lii gannaaw nodd bi yenentu bi salaa sallam nee na kooku médité na sama ràmm keroog bés pinc kon képp ku bëgg a médito ràmmub yonent bi keroog bés pénc ñaata yoon lañuy yëkkati baat bi ñaata yoon lañuy nodd ci bés bi juróomi yoon saa yow déggee nodd bi fexeel nga mokkal ñaan bi waaye boo fekkee ne yaa ngi ñuy topp ci réew mi FM 97.5 du ñàkk di mokkal ñaan bi bi isnillahi subhanahu wa yal nañu ko yàlla yombalal amin ya rabbal alamin kon mbokk yi yéen a ngi fàttaliku woon ñu ngi yemoon ak yéen ci suñu alwa bu jiitu bi te mooy aaya ba nekk suuratu saafaat yonent yàlla ibrahim alayhi salaam nekk di discuter ak xeetam gannaaw bu ko yàlla nattoo wàcceeku ci xeer wi nga xamante ne jaamu xërëm mooy seen liggéey jaamu xërëm la leen fekk ñu di ko def bàyyi fi yàlla wi nga xamante ne mooy borom bi foo ni yéen a ngi fàttaleeku keroog buñ doon taqale kooku yéen ci alwa bu ñu taxawoon moo ne Ibrahim alayhi salaam keroog bu gaayam bu xeetam joxe ginnaaw dem seen programme bañ doon dem. ñam yañu tegaloon seen yàlla yi seen xerem yooyu ibrahim alayhi salaam bu mu ñëwee dafa jël ñam yi tiimale leen ko mu ne leen fa qaala ala taakuluun mu ne leen ba xam moo yéen ba xam du ngeen lekk xërëm yii la ibrahim di laaj mu ne leen ba xam ala taakuluun moo ne yéen du ngeen lekk tontu ko ñu ne cell mu teg si ne maa lakum laa tantiquun moo yéen lan leen dal ba ma tontu ci laaj yama laaj lu tax du ngeen wax ak man ibrahim daal di am xol bu naqari fa raaga alayhim daraban bi yamin fa aqbaluu ilayhi yazifuun qaala atacbuduuna maa tanxituun wallahu xalaqakum wa maa tacmaluun qaalu bunuu lahu bunyaanan falquuhu fi ljahim fa araadu bihi kaydan fa jacalnaahum asfaliin wa qaala inni daahibun ilaa rabbi sayahdiin rabbi xabli min alsaalihin sadaqa allahu alazim mbokk yi yann jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot istuwaaru yonent yàlla ibrahim alayhi salaam ba ba mu defee li mu def mu wax yii mu wax xërëm yi yàlla suñu boroom ma fekkee jëf ba ma fekkee discussion ba ibrahim don discuter ak xërëm borom bi ne yonent bi ci téere bi ci saar bi mu ne ko faraaga bi yamin mu daal di leen tojate di leen falaxe di gor di xar day gor seen mi mu daggate leen après mu jël simmiñ bi xotti biir bi dagg ñaari mbagg yi tojate leen ginnaaw bu mu defee lii fa aqbalu ilayhi yazifun mu daldi jël semmiñ bu mag bi wékk ko ci xërëm bu ngand bi waaw mu daldi wax ne moo yéen man li ma def nii te kenn mënu ci dara kenn ba ñu kaa teree def du xërëm du lenn la ma ko teree def qaal Ibrahim ne leen ataabuduuna moo ne yéen de dangeen di jaamu li nga xamante ne maa xiitu li ngeen yettal seen bopp créer leen ko seen bopp bant bi nga yettal sa bopp sa loxo nga yett ko ba pare bant bu dee wow ko nga yett ko ba nga ko bëgg comme nu la neexee nga teg ko nga ne kooku ngay jaamu suufe doomu aadama àgg na fi suufe bookaalekatu yàlla fii la toll ibrahima alayhi salaam daal waat mu ne te ngeen bàyyi ki nga xamante ne moo leen bind ak li ngeen di jëf moo tax mu ne wallaahu yàlla xalaqakum moo leen bind wama taamaluun ak lépp li ngeen di jëf yàllaa leen bind li ngeen di jëf di defar xërëmi ak li ngeen li ngeen leen soppee ak ñam wi ngeen leen di jox ak coono bi ngeen di daj ngir créer seen xërëm yi xam-xam boobu yàlla ko roof seeni xel seen cër yi di ko def moo tax mu ne wallaahu yàlla xalaqakum moo leen bind wama taamaloon ak li ngeen di jëf nii lépp yàllaa ko moom yàlla moo leen ko créer moo leen ko yenkeewal waaw mandute yàlla nag léegi-léegi day bàyyi doomu aadama mu bàyyee ko sagoom mu nekk ci lu ko soob mu nekk li ci lu ko neex waaw parce loolu moo neex xeetu yonent yàlla ibrahim jaamu xirim waaw ibrahim ñëw na wax leen wax wax nag ñoom jaamu xirim ba ngeen nekkee amuleen ne benn njëriñ amulu leen benn njëriñ kon te ngeen te ngeen na bàyyi jaamu xirim di jaamu yàlla mais faale wuñu ko ñoom jaamu xirim bi daal lañu ñu choisir waaw moo tax mu yey leen ci wax mu ne leen wallaahu yàlla de xalaqakum moo leen bind wama taamaluun la di jëf tamit yàllaa ko bind léegi bu mu ak xeetam mbokkam yi amuñu dara luñ ko wax lu dul ñu ne ko xaalu ñu ne ibrahim xaalu ñoom ñëpp ñu mànkoo ñu ne ibrahima de lenn rek a fi des pour ñu def ko waaw xale bi sonal nañu xale bi fàtt nañu xale bi toroxal na suñu xërëm yi léegi nag lenn rek a fi des xaalu ñoom ñëpp ñu man ci benn kàddu kàddu gi mooy lan ku ko bugg a xam nag ñu topp ci réew mi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi fii jaar xaalu ñoom ñëpp ñu man ñu ne ibnu lahu bunyaanan na ngeen ko tabaxal ab tabax boo xamante ne day xóot waaw na ngeen ko gasal kàmb waaw falquuhu su ko defee ngeen sànni ko fil jahim ci safara su tàng joo xamante ne mun na tolloog tàngooru safaray jahim yàlla suñu borom tabaraka wa ne fa araadu bihi kaydan ñu bëggal ko nammal ko ak pexe bu ju bon ngir ñu lakk ko dundam yem foofu yàlla ne mais seen fexe boobu ñu naral ibrahim yàlla ne fa jaalnaahum maa def seen fexe boobu noonu al asfalina mu doon fexe bu nax saay waaw yàlla ne fa araadu bihi kaydan ñu namm ci ibrahim fexe ju bon mooy gasal ko kàmb taal safara ba ne jëppeet ñu daldi di ko fa sànni ñoom la waa dëkk bi mankoo ngir ñu def ko Ibrahim yàlla ne fexe boobu ñu nar nag fa jaalnaahum def naa seen fexe boobu mu nekk al asfaliin fexe bu suufe fexe boo xamante ne ah résultat bi daal daa mujjee naax saay tàbbi géej ndax lañu ñu bëggoon ci yonent yàlla Ibrahim alayhi buur yàlla tabaaraka wa taala antuluu ko te tamit joxut leen ci résultat bañ sa ndax yàlla moo moom safara tàngooru safara bay lakke yàllaa ko moom ndax yàllaa bind safara yàllaa bind tàngooru safara bay lakke mu rocc tàngooru safara soosu ci safara si su ko defee ibrahim alayhi salaam daal di mucc boo demee ci suratul anbiya ci kaw dinga nga dégg yàlla ne wa qulnaa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim ñu daal di wax safara si ne yow safara si nekkal seddaay ju mucc ayib seddaay ju ànd mucc ci sama jaam bi di Ibrahim su ko defee seen pexe bi yàlla def na ko mu doon pexe bu naax saay wa qaal Ibrahim ne yéen daal comme lii moo leen dese ci man lii moo dese ngir ngeen def ma ko lu lu fu wér te wóor mooy dama leen di bàyyee seen i nekkin bàyyee leen seeni dëkk dox dem sama yoon qaal wa qaala ibrahim ne inni zaahibun ila rabbi sa diin man maa ngi dem ut sama borom maa ngi ni di dem seen sama borom dem xooli sama borom ndax mu war mu war maa mën a jubal teg ma ci yoon bu jub ma bàyyee leen seeni nekkin mu daldi ñaan yàlla ne rabbi sama borom habli nang ma may maa ngi lay ñaan allahu akbar ibrahim mu ngi doog a ñaan ndax en ce moment dafa wéet moom kot moom dong la du doom du frère du kenn moom dong la mu wéet ci nubuwa ba ko yàlla gàll mu wéet ci woote ba muy woote xeetam jëli leen ci bokkaale ak jàmm xirim yóbbu ci tawxiid yóbbu leen ci wéetal yàlla su ko defee yonent Yàlla Ibrahim daal di dikk di ñaan boromam ne ko ràbbi sama borom habli ma lay ñaan yàlla nga ma may mina saalihiin ci jaam yu baax ñi ma lay ñaan yàlla nga ma may ndono ju baax yàlla suñu borom tabaaraka wa taala ne fa basharnaahu ñu daldi ko bégal bi xulaamin tuut tànk joo xamante ni xaliim ku neex a nekkal la ku neex a meññ la ku neex a dëkkal la tout bu neex a jëflante ci lépp nag waaw muy Ismaayil alayhi salaam yàlla ne ñu baaxee ko jaam ju baax ba mu doon ñaan mu nekk tout tànk ju neex a xool ku neex a meññ ku neex a jëflantel waaye ku neex a dëkkal mu doon doom ju neex a meññ alayhim assalaam yal na yàlla yokk xéwal ci suñu maam Ibrahim ak doomam jooju di suñu maam Ismaayil alayhim assalaam borom bi tabaaraka wa nee na bum ko wërsëgalee tout tànk ju neex nekkal jooju tout tànk bi nag dafa tollu moment joo xamante ne cofeelam dafa bëgg occuper xolu yonent yàlla Ibrahim te moo ne waxtaanoon nañ fi ne Ibrahim yàlla da ko doon xool ba xam cofeel ba mu am ci yàlla dina am beneen cofeelu mbindaafoon ba nar a xolam waaye cofeelu xale bi cofe cofeelu xale bi des na cofeelu xale bi moo waaj a occupé xolu ibrahim alayhi salaam su ko defee borom bi tabaraka wa taala ne fa lamma balaga maahu xale bi bu mu demee ba tollu ci waxambaane saaya maahu moo ngi ànd ak pappam qaal ibrahim ne xale bi ne yaa bunayya yow sama doom man de temps yëpp dafa am li ma doon dikkal la ma doon dikkal la ma doon dikkal mooy mu ne ko inni man de ara maa gis fi manaami ci nelaw ya ma doon nelaw inni asbahuka ma di la reyndi loolu gént bi de dikkal na ma ñaar ba ñetti yoon waaw léegi nag ma bëgg a waxtaan ak yow ci loolu gént boobu ma di gént may gént di gis ci biir gént bi jël paaka di la reyndi loolu moom jaaxal na ma lool léegi nag ma di la laaj sa avis di la laaj yowit lan nga gis ci loolu allahu akbar baabakar lii la yonent yàlla Ibrahim laaj doomam di Ismail mu ne ko yaa ney yow sama doom inni ara fi manaam man de maa gis ci biir nelaw di gént anni asbahuka man sa baay ma di la reyndi waaye nag daka laaj mu ne ko fanzur maza tara xoolal li ma la wax lu ci gis waaw doom bi waxu ko dinaa daw doom bi waxu ko papa man mii papa xanaa comme ni gaay di waxee ni Babacar xaale bi waxut lenn la suñuy gone yi tey di wax seeni waajur waaye nañu bokk déglu la Ismaïl wax baayam allahu akbar Ismaïl daf ne baay bi mu ne ko xaal mu ne ko yaa abati yow sama baay ifal defal maa tumar lañ la digal sa tajidu nii dig ma fekk inchaa allahu nem soob na yàlla mina saabiriin ci way muñ kat ñi lii la doom ju baax bi tontu baay ju baax ji ndax xam na ne baayam du bandi xam na ne baayam bi du criminal xamoo xam na ne baay bi bugg koo reyndi ngir coobare reyndi ko waaye dakaa xam daa xam ne baay bi daa jot ndigal bi nga xamante ne dafa war a exécuter li nga xamante ne mooy lam ko doon wax mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi mu doon waxtaanu Tabaski bay jaar fii ci réew mi FM 97.5 ñu ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa taala tabaski bii di digmal nii di ñëw yàlla ñu fi fekk buy dem yàlla ñu fi bàyyi te lépp lu ñu fa jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin ku bëgg a xam waxtaan bi fu mu mujj incha allah nang ñu topp suñu waxtaanu fajar bay jaar fii nii réew mi FM 97.5 سائلين مولى جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم يا رب آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم يا رب احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول ما تسمعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته وبركاته